suñu njiit wax kaddu gi nag di suñu kilifa le président de la république Macky Sall mi nga xamné bu lekk lekkee alom na ko gërëmee coy président Macky Sall bu faruloon jéen Ousmane Noël du am président Macky Sall bu doolelawuloon jéen je pense que Ousmane Noël du am. di wax né le président Macky Sall.

moo tax may jëmale sama kàddu yi jëm ci moom di wax monsieur le de la république waxoon naa la ne Kaolack maa ko moom. caaxaan amul solo lii liggéey moo ko mayee lii alal maywu ko lii nax nit ñi maywu ko lii peeg nit ñi mayul ko lu koy may nit ñi mooy yëg te yàlla rek tax ànd ak ñoom te yàlla rek tax di wax monsieur le président de la république ñoo ci mobilisé te ñu ci mobilisé yëpp ay benn ñaari kaar ñoo fi ñëw et donc lii du dara par rapport ak mbooloo bu le mouvement MJKDF 2S yor derrière le ministre Farba Sarr ñuy sàkk ci yow ñuy sàkk ci yow monsieur le président de la république na nga gën a gëddal na nga gën a jox cër na nga gën a dooleel monsieur le ministre Farba Sarr ñu ngi ñaan ci yow nga yokk ci li nga dooleel.

kon gor bu ànd ak yow dalay defal te du communiquer suñ ne kon politicien buy communiquer la lu mu def fokk beneen politicien dootul wax. ay nitam ñi nga xam ne moo leen fal musul xam kenn musul leen fal par décret bu ñu xamee président fal leen par décret sa à cause du ministre Diène Farba Sarr fii lañ nekkoon di xar mat fii lañ nekkoon di uti dara. patron de Kaolack le patron du Saloum c'est le ministre Diène Farba Sarr bu Maulana Cheikh al Islam Kaolack bu Abdou Hamid Kane Kaolack bu Maam El Hadj Abdoulaye bu Maam Khalifa Niass Kaolack bu Serigne Bassirou Mbacké n'importe qui du fa jiite jël sa benn million sànni ko si marché te yaay caméra may borom Kaolack ku jóg ne may borom Kaolack soxna Diène Farba Sarr moo ñu mën a